téléspectateurs bonsoir et bienvenue ñuy am mbégte di àddu ngeen di teewlu mbokk téléspectateurs yi si seen biir émission Vox na ñu nekk nag ci seen restaurant Gusto Italia fii la ñu àddoo ngeen ñu teewlu tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen euh, ci lamb ju aw am solo wala d'une manière générale lamb yi nga xamante ne am na fi alors euh, tey suñu invité moom mooy un grand promoteur le grand promoteur Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye la ñu dalal tey alors comme ni ngeen ko gisee sama consultant euh, Mame Less alors coach maa Euh, auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu waa Vox Arena du nuyu waa Gusto Italiano bi ñu nekk nii du nuyu fàllu di leen nuyu yow tamit Cheikh du nuyu waa Axlu Làmb waaw du nuyu képp koo xam ne mu ngi dund ci Axlu Làmb rek maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar. voilà mbokk yi comme ni ngeen ko gisee euh, yaakaar naa décor bi campé nañ ko ba pare li ñuy waxtaanee moom mooy événement bu mag bi nga xamante ne moom la Fallou Ndiaye euh, tëgg. de ay combat yu mag a mag yoo xamante ne benn bu ci nekk mën na feesal stat moom la Fallou njaay tëgg ba bëkkaa boole ci benn journée alors mu war a nekk journée boo xamante ne bu war a riche la ci wàllum culture mais ci wàllum événement alors coach nan nga gisee d'une manière générale événement yu ni toll euh, journée bu neex la journée le 28 bi journée bu neex la journée boo xam ne aussi war naa jaay boppam le 27 juillet journée bu neex la journée bu war a jaay boppam la ndax ay ndaanaan la ci boole ay kàngaami làmb la ci boole ñii daan nañ ñii nekk ci ci même bi ñee daan ñee nekkaat ci poule même poule bi donc nag làmb ju neex la journée bu neex la journée bu jaay boppam la déjà alors mbokk yi dañu leen di limal rek balaa ñoo dem ci fàllu ñu décortiquer un petit li nga xamante ne moom la tëgg alors ñu leen di fàttali samedi 27 juillet 2019 ngeer bu tay chinga moom la boole ak franc bu parcelle mbooloo bu fa jógee mu jël euh, Tyson Tyson 2 bu Tay Singa toujours boole ko ak Goro Sock ah boole ko ak Goro Sock bu Dóor Dóoraat mu jógee fa daal boole doomu dàngu songaan Gueye écurie Songane Gueye mu daal di ko booleeg Feu Rouge alors Feu Rouge nekk écurie ko Sow mu jógee fa jël mbay 2 bu écu bu Mor Fadam xam ngeen ko Pambay mu coriace moomu alors mbokk yi moom la boole ak Garga 2 bu Dóor Dóoraat. alors mu jógee foofu daal di ñu indil super jamono bu écurie Mor mu daal di ci boole bis bébé bis mi bu dóor dóoraat voilà Cheikh super jamono mu nekk événement yoo xamante ne mbokk yi événement macha allah la alors allo nan nga boolee jour euh, combat yi yëpp ci benn journée. waaw ñun xam nga bu dee ci wàllu événement ci làmb euh, amul leen lu ñu xam ne nañ ci jaaxal ndax yàlla dogal na. avant ñuy ñëw ci bëri dañ doon tëgg ay lutte simple ci banlieue bi fu mel ni ay terrain mag daan ay lamb tukulóor kon yaakaar naa tey organiser lu mel noonu duñu jaaxal bu ñu xoolee suñ parcours lamb bi ñu déba bi ñu démarré ak léegi yàlla mu ñuy dimbalee heure bu ne chaque année ñu ngi jima yokk benn jéego bu bokkul ak bi ñu amoon daaw chaque année nag biñ commencé ak léegi yàlla dogal na temps bi gàtt na at yi néew na waaye nag ñu ngi ciy bay suñu waar ba nga xam te yaakaar naa partout xam nañ tey suñu liggéey xam nañ tey suñu compétence euh, bu ñu xoolee daaw tournoi TFP bi ñu indi woon jàpp naa ne buñ ci jógee ci loolu euh, xool daaw jéeg andi Aline Seyde Yanda ay goo Goso Cobra ay yeneen affiche yu mag ay booy Bool trompeur ay affiche yu mag yoo xam ne nii traversé nañu kon yaakaar nañ ne tey euh, lii dafa bokk rek suñu yoon ñoo ko tracé mais suñu objectif sax du fii suñu objectif romb na tey événement bi nga xam ne ci lañ nekk. bon événement bi nag euh, comme ni ñu koy waxee yomb na yombul mais ñu dañuy jàpp na rek dina yomb ci ñun ndax maîtriser nañ bu baax a baax li nga xam ne moom la ñuy def ci wàllu événement ci wàllu làmb ndax yàllaa ñuy suturaal ba bi ñu commencé ci làmb léegi comme ni ma ko at yi mën naa bañ a yàgg waaye nag euh, yàlla ñuy suturaal ba heure bu ñu tëggee ba saison bi jeex duñ am benn jafe-jafe benn bër ñuy ñaan suñ boom mu kàttanal ñu ba loolu ñu continuer ko ndax tamit ku ne xam na ne làmb dafa metti te boo ci nekkee ay at bëgg cee def presque huit ans wala neuf ans yoo xam te ne yaa ngi ci làmbo kon yaakaar naa ne te kenn mosulaa dégg coowal xaalis ak mbër kenn mosulaa dégg coowal xaalis ak menacé kon da ngay santaat yàlla bu baax a baax xam ne li ñuy def ñu ngi koy xool bu baax a baax ñu ngi koy saytu bu baax a baax ba nga xamante ne nii buñ ci jógee mbër yi nañ ci bég menacé leen engagé dañ ci bég waaye yow promoteur bi nga xam ne yaa doon organisé tamit di nga ci am bégte effectivement yaa ngi wax léegi wàllum xaalis ñëpp xam nañ ne mbër euh, bu bëree ba pare li muy bëgg mooy jotu reliquat alors nooy def pour mën a boole journée bii nii te euh, mbër yi doo leen euh, te xam nañu sponsor yi xaw na jafe léegi ci ci làmb alors yow nan nga fas yéene relever défi boobu. waaw euh, boo xoolee daaw comme comme lii rek presque moo amoon daaw ndax daaw am nañ benn tournoi TFP bi ñu dee tournoi TFP presque chaque chaque chaque chaque jour journée minimum lañ bëyaloo huit grands lutteurs yoo xam te ni ay champions yu toll nii champions yi lañ. alors boo xoolee tey jii ci biir affaire bi ñaari champion yi bokkoon tournoi bi sax ñu ci kon yaakaar naa loolu du ñu jaaxal ñaareel bi mooy ñun toujours bu ñu tëgg làmb li ñuy jiital mooy suñu ay moyens bopp. loolu métti na de. ay moyens ay moyens bopp. sponsor yi xaw a daw mais loolu loolu loolu dana métti jamono ji làmb actuellement fi mu toll su dee da nga ciy dugg bëgg ko yaakaar ci sponsor boo xam ne ni ñëwagul wala nga bëgg yaakaar ci parrain bi nga xam ne ñëwagul yaakaar naa bu jafe-jafe di am rek toujours foofu la nit ñi amee jafe alors ba làmb boo koy tëgg war ngaa xool budget boo xam te ni leer na ne tey événement bi ngay tëgg dina méngoo ak budget bi nga xam ne yor nga ko sa poche sa pare alors nga fexe nag kere say événement ba événement bi sotti nga doog a nag takk sa dàll sàkk sa ndigg wuti ay sponsor wuti ay partenaires yoo xam ne ñoo lay accompagner pour événement bi mën a am résumé total te it nañ def suñu ay calcul ba nga xam te ni wóor nañu ne événement bi nu mu mën di toll dinañ fexe ba suñu calcul du ñu nax ci li nga xam ni moo war a ñëw ci événement bi ci wàllu public li nga xamante ni moom la ñu war am ci wàllu sponsoring ba nga xamante ni da méngoo ak li nga xam ne moom la ñu fay mbëri ba nga xam ne bu lamb jeexee même suñu amul dara duñ ci perte ba pare mbëri dañ mën a fay ko seen xaalis. très bien mu nekk loo xamante ne yaakaar naa euh, ci wàllum organiser événement il faut nga nekk professionnel yaakaar naa pour mën a def loolu parce que comme ni mu ko waxee lamb ji jamono ji métti na euh, coach moment bii nga xamante ne euh, sponsors yi mën nañoo wax ne ñenn ñi daw nañu moom mu fas yéene boole événement bi ni euh, combat yi ni toll ci benn bés. coach euh, xam nga Fallou déjà amateur la. Mm. boo ko déggee xam ne ko rampe ci li muy def la. ku ci doxi jéego la. man mii yàlla baax na ba miinu ma ko trop. waaye xam naa ko bu baax. xaadim mii rakam. bunt ba muy toog te mbëri di fa duggee. xaadim bu ma gisee gis ko dina xam ne non dina xam ne ku am ful la non dina xam ne ko am fulla ci journée mi fàlluy organiser la parce que porte ba mbër yi duggee xaadim xam na danaa fa taxaw ba mbër muy ñaan sax duma la may nga dugg te wóor na yàlla fàllu muy xamul li may def ci moom ndax yàlla moo xam man damaa bëgg làmb mais xaadim dina ma gis ci porte bi porte ba sii say toog mbër mu ñëw naan damaa bëgg dugg dama naan doxal foofu parce que ñoom ñëpp xam naa leen ay xale lañ te xale yëpp ñu ci tàggat naa parce que nit aussi du di organiser événement am bu la soxlaa nga ne ko nangam nga may fay bu amee combat nga bëgg a ñaan pour dugg loolu rafetul waaw waaw waaw <laughs> alors Tyson euh, ma bëgg ma bëgg ñu décortiquer tuuti rek combat bi nga xamante ne si la ñu jëm alors euh, coach ma bëgg a décortiquer tuuti li nga xamante ne moom la tëgg balaa ñoo dugg ci ñaareelu xaaj bi alors dañu ñëw ci euh, Nguer bu Tay Shinga ak Franc bu Parcelles mbooloo <laughs> waaw xam nga Nguer maanaam màggetum jalaase la. coach lan mooy màggatum jalaase. maanaam màggatum jalaase mooy mag mu dem ba dikk waaw ñu boole ko xale bu ndaw te xale bu ndaw bi ma koy tàggat man nekk entraîneur formé ko ba muy xale ba léegi. non man ña ma formé bari na mais dama lay wax ne la damaa tàggati xale formé leen ba ñu dégg ndaanaan dégg daali waaye ndeer da di màggatum jalaasa bëre woon na Fuuta mook Super Étoile Super Étoile daan ko Franc jël mbaytin daan ko donc nag xale lañ booleeg mag maanaam boo dégg ñu ne xaleeg mag kii da koy njëkk a dugg ci làmb donc mais génération ak liñ koy magee du ñu bari parce que boo xoolee ngeer xam ne komba bi jox na ko daye boo xam ne ak état bi mu indi ak loo xam ne dina leer na ne moom bu réew dékku foog Franc combat bi dina met Franc di naan ku ko xam xam ko ci bëre simple bi ku ko xam xam ko ci ni muy bëree donc nag muy combat bu neex. ñoom ñaar waaw. ñu ñëw ci Tyson 2 ak a Sock. waaw ña maanaam ñaari loolu mooy mooy combat dox dëpp gi mooy mooy combat njërndéem. ndax boo xoolee euh, Tyson 2 dafa dafa jóge ci Elton Elton daan ko ndax yaakaar na ne Elton diis na jamono yooyu amoon na tuuti loo xam ne yokk na ko ci yaram bi te jugu ko dañoo xamante dëgg sa yàlla yàlla tax ñuy wax aussi bon donc nag combat bi gis ni mu ko jëlee ba Elton daan ko mu rectifié waat boppam defaraat boppam cultivé waat kooram yaa ngi dégg góor a soog bi bi mu bujjee bëre bëre naa Cobra daan Cobra bu Pikine bu Pikine booloo donc waaw donc donc na jóge fa non dama may expliqué jaar-jaar bi jóge fa ñu boole koog ma Mandione Ndar mu daan ma Mandione Ndar kon nag moom ak Tyson 2 bu neex la ñoom ñaar la ñu boole bis bu neex la ci bisu Fallou Fallou tamit xam li muy organisé parce que combat yi nga organisé aussi bu yàlla nag tax ñu wax combat njërndéem la. mais li ma jaaxal Fallou dafa mel ni dafa dem copte waa parcelle ah boole na waa Tay mais man Modou Lo Modou Lo Modou Lo Eumeu bii fi Fallou man def man laa xamul nu ko Fallou xalaatee man. loo xam nga journée bii dafay nekk journée boo xam ne daanaka xale yi tolloo dayoo la boole parce que xale boo ci gis rek da nga naan moo mën morom ji. koo ci gis da nga naan moo mën morom Tyson 2 Gora Sock da nga yaakaar ne Gora Sock moo mën Tyson 2 wala Tyson 2 yaakaar ne Gora Sock moo mën looloo tax ñu naan combat looloo tax mu muy amateur te xam làmb aussi di ko doxal comme ni mu ñëw ci doomu dàngu jël naa ko fan rek émission ak feu xam nga Farouz daa. waa ji fan lay fan lay fan lay loxatee combat yi est woo ko. nee naa la amateur la amateur làmb la pare liggéey liggéeyu boppam am entreprise boppam di ko liggéey am ci fulla nag parce que li muy wax sànq wax naa ko ne gis na eh, am na télé yu bari yoo xam ne ñoo ci na làmbam la ca war def na ko ci. yaa ngi dëgg léegi nag diggante Farouz ak doomu dàngu doomu dàngu bi muy bëree Ibamar dafa dóor ñaq jar mu yaa ngi dégg feu ñu boole kook ak un parce que moo tax ma ne léeg xale bëgg yoon jël màggatum jalaasa moo xam ne da koy freiné parce que feu ku ko xool xool ko en 2000 danga xam ne feu moo ëpp doole en 2000 mais bëri ba ca en 2000 la feu rouge ba en 2000 daan ko jël bu rëy bu kenn dul werante waaw donc nag combat boobu bu ñu jëlee doomu dàngu boole kook feu rouge yooyu sax mënoon naa nekk combat yi gën a neex waaw combat yi leneen fàllu xalaatoon na ko ci mais xam naa ne yóotu na lenn li mën ta jot kii mu jël ñaari jaxase ndaanaan la. <laughs> ñu ñëw ci Pape Mbaye. Pape Mbaye 2 mi nga xamante ne mën na bëre ba suba. ah mu boole ko ak Pape euh, xam nga li li li Fallou wax rek boo jëlee xale def leen ci tournoi ñu daanante seen biir xam nga lim lay wax yéegu fa maanaam euh, làmb yi da koy topp. mais euh, ñu mu mu daal di tëjee ci affiche bi ak. Cheikh Super Jamono bu écurie Mor Fadam ak bébé bismi bu dóor dóor waaw xam nga daa boole ñaari ndaanaan kii daa daan koo xam ne yaakaaru na dañ ko daan Cheikh bu Super Jamono daa daan Scorpion ci arène nationale bi bébé bis mi ñu tëgg ko combat ci arène nationale bi mu daan alliance biram te alliance biram ku ko xam xam ne bool bool dañ ko ëmb te yaa ngi dégg te bëreekat la te ndaanaan la daan na fi jël yoo xam ne kenn doo xalaat ne te kenn xalaatu woon ne bépp bis mi dana ko daan bébé bis mi daan ko kon nag donc combat bi ñu ko boolee muy ñaar ñu juge ci dynamique de victoire yaa ngi dégg kon nag combat yu neex lay doon dëgg-dëgg moom journée bu neex la aussi effectivement. Euh, li nga li nga jotagum tëgg balaa maa ñëw ci euh, ki nga xamante ne moom mooy finalu euh, daaw bi mujjul sotti li nga jot tëgg nga bëgg kaa ci benn journée alors da nga am jamono ji sponsor bu nekk sa ginnaaw bu la gungee pour nga mën a tëgg loolu wala nga am parrain wala voilà. Euh, biñ koy démarché pour tëgg événement bi amuñu woon benn sponsor boo xamante ne ni pare woon na pour ànd ak ñun ci événement bi mais comme ñun yàlla dogal na maîtriser nañ làmb bu baax xam nañ ci bu baax li ñuy def xam nañ bu baax tamit fi ñu dugal suñu xaalis dinañ calculer ba nga xamante ne nii mën nañoo tëgg làmb sans sponsor. man nañoo def suñu événement sans sponsor te bu làmb bu jeexee benn mbër du am jafe-jafe ak ñun muy jafe-jafe xaalis muy beneen jafe-jafe. ndax tamit euh, bu fekkee dañoo toog di xaar sponsor bi yaakaar naa làmb du dem te bu ñu xoolee lamb yu njëkk yi amuloon sponsor Sénégal yi ñoo war xool nan la ñuy jaayewaat suñu culture nationale bi muy làmbu ba nga xamante ni war nañ ko mën a def sans sponsor war nañ ko mën a def sans parrain war nañ a def ñu calculer ne tey jii mbër yi war nañu xaat seen kase yi ñuy fayeeku promoteurs yi xool kase yu ñuy fay bu baax a baax ba nga xamante ni war nañoo mën a natt xayma ci seen wàll nekkat kat nañ ne budget bi buñ ko génnee. normalement war nañoo mën a jaay nombre de billets bi ci sat suñ jaayee nombre de billets bi ci ISAT minimum di nga war a mën a fay mbër yëpp minimum di nga war a mën a def say charges yëpp ba te doo ci benn gàllankoor alors léegi nag soo defee ba pare li ngay mën a def mooy dem ji ma nag xool nooy décroché ay sponsor nooy jekkee xam nga lamb tey mënoo ko voilà day voilà très bien xam nga làmb tey mënoo toog sa kër amoo mbër amoo dara dem na da ngay wuti sponsoring mënta nekk sponsor tey boo koy déma boo koy démarché il faut nga won ko benn cahier de charge boo xam te ni mooy wane ne tey lii la waa ji organisé pour mën a dëgg pour mën mën koo jox xaalisam. mais euh, événement bi ñu toll ñenn ñaa ngi xalaat ni di nga ko def pay per view parce que gis nañu récemment Luc Nicolaï daal di ko def aussi euh, yaakaar naa am na ci réussite arène ba neex na ñu bëgg a seetaan si làmb bëgg ñoo jaar par pay view ñëw nañu stade stade bi neex na pour la première fois ñu gis arène nationale euh, mel noonu alors ndax ngi ciy xalaat. waaw ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy liggéey teg ak ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu boobu muy Buzz Pro ñu ngi ciy liggéey ji liggéey suñ suñu grand Issa bon ñu ngi ci doon waxtaan ak waa TNT di xool nan la ñuy def mais tey ñun dañoo jàpp ne euh, li ñu gën a intéressé mooy population Sénégal li ñu gën a intéressé mooy ñi nga xamante ne ñu ngi ay Tamba ñu ngi ay Matam Kolda ne ci àll bi nga xamante ni mënuñoo jot ci internet tey jii tey su fekkee am nañ partenaires yi nga xam ne mën nañu accompagner ba ñu mën cee gis bopp non duñu wuti euh, duñu wuti intérêt de plus boo xam te nii dañ naan nañ ci yokk leneen déedéet dañuy fexe noo xam te nii képp kuy sénégalais foo mën a toog di ko mën a seetaan en direct ci télévision te doo am benn jafe-jafe bu fekkee ne nag yooyu yëpp amul comme seen PPV bi ñu wax dàquñu ko mais daal suñu amee lu ñu gënal ànd rek lañ koy def sénégalais yëpp di ko seetaan tey eh, tey incha tey incha allah arène nationale nga ko nga koy boole. lool moom arène nationale lay am ndax xajul feen fu dul arène nationale te amitié ñu ngi naan dañ koy joxe ku ne gis na ne Issa Demba Diop li am kon yaakaar nañ ne combat boobu arène nationale boo ko defee Iba Mar yaakaar naa 9h suba Issa bi lay fees waaw ah loolu moom <laughs> leer nañu bu baax a alors mbokk yi ñu leen di fàttali nii ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy euh, Resto Gusto Italia nekk fii ca Almadi nekk ci wetu station Shell bi euh, sorewul tarak station euh, Ngor bi foofu la ñuy defee seen émission Voxo Arena di leen wax ni lépp loo xamante ne soxla ngeen ko ci lekkum italien comme ni ñu koy waxee ah fii rek ngeen ko mën a amee mbokk yi dañuy dem ci seen rubrique taxaw seetlu yenn promoteurs yi bugguñu arène national ñii dañuy wax ni arène national neexut a bëree ñii dañuy wax ni organiser fa yombul ba ci Gris Bordeaux récemment mu ngi doon wax ni pour mbër def fa échauffement bu jaar yoon yombul yenn promoteurs yi aussi boycotté ko yow yaakaar naa mës ngaa tëgg arène national fekk naa la arène nationale. waaw man tëgg naa fa deux journées bii mooy troisième journée. oui euh, mais lan moo tax promoteurs yi sa mbokku promoteurs yi sawaruñu ci arène nationale. waaw xam nga arène nationale am benn histoire boo xam te nii. Mhm. Euh, lamb war na koo état war koo moytu surtout côté ministre des sports ndax moom lañ dénk làmb mënuñoo jàpp ñu ne arène nationale 32 milliards lañ ci def. Mhm. Euh, chinois yi ñëw ne ñoom aide la dañu koo may. Mhm. ma jàpp ne tey boo demee Léopold Sédar Senghor bi bu football soxlaa 50 mille lay fay pour ñu football ak équipe bu mën di doon. oui soo demee tey Stade Demba Diop c'est la même chose 50 mille francs ngay fay pour football alors ñu ñëw ne arène nationale pour nga tëgg fa làmb di nga joxe 500 mille. mais euh, monsieur le ministre euh, des sports Matar Ba nekk na koo xamante ne ku bëgg jaloog la koo xamante ne ku bëgg waxtaan la est-ce que euh, point yi jot ngeen cee waxtaan ak moom ndax aussi yaakaar naa boo leen ci waxtaan ak moom yaakaar naa di ngeen ci juboo mm, di nuyu président bi muy Pape mm. ku ne gis na ne defoon nañu benn point de presse pare ñu woon sax pour tëgg lamb ren ndax difficulté yi nga xam ne promoteurs yi ñu ngi koy ñu ngi koy dund ci stade yi muy stade Iba Mar Diop muy arène nationale. arène nationale ñëw gën yokk nit ñi ay difficulté ñu ñëw tëgg arène nationale mais dañuy dafa cher te wóot a cher ndax tey état dafay war a accompagner sport muy football muy leneen tey boo demee tey ministre des sports am na budget boo xam ne nii pour sport kese moo ko rajo tey milliards la ah mhm. du mhm. jii ci lañu war a fal seen ay directeur général ci lañu war a xool nan la ñuy léegi nag bailleurs yi nga xam ne dañoo ñëw pour jàppale pour jàpp ci jàpp ci ndaw ñi ñoom ñu xool lan lañ mën a participer ci arène bi ba nga xam te ni yenn nettoyagement yi ak yenn affaires yi dañ ko mën a gérer mhm. mais tey bu ñu bëggee ne tey promoteur bi mooy fay lépp lu nga xam ne moo war a dem ci stade bi promoteur ko te mu mu te mu a te mu war a fay mbër yeeg seen reliquat leen bañ a dara loolu mooy problème bi promoteur yi bañuñu arène nationale amuñu problème mu tëgg fa mhm. man tëgg naa fa deux fois mhm. bii mooy effectivement yeneen promoteur ñu ngi koy tëgg ku ne yaa ngi koy dem di ko tëgg bañ ñu fa tëgg mais dañ ne nañ leen yombalal condition yi ñu tëgg ci arène nationale ba duñu am yenn jafe-jafe yi ndax làmb gën Iba Mar Diop ngay tëgg perte hmm. te boo xoolee frais organisation yi mënul cinq cent mille hmm. nga bëgg dem ci stade boo xam ne yëpp day mat un million hmm. kon kay waxuma la perte mais da mais mais aussi aussi euh, li nga xamante ne balaa balaa ñoo ñëw ci association bi coach li nga xamante ne moom mooy arène national bi ñenn ñi ne dafa cher comme ni mu ko expliqué léegi frais yi ak loolu nan nga ko gisee xam nga promoteur boo xam ne sa bopp nga yaakaar yaakaar ñi lay jàppale sax as néew yow yaay dem wuti leen donc arène nationale kenn du ne yomb na parce que boo xoolee lii ci policiers yi la jëm lii ci stade bi la jëm lii ci nettoyage bi la jëm parce que boo xoolee benn 500000 bi benn 150000 bañ cay dindi kay nettoyé waat stade bi nettoyé toilette yi nettoyé salte yañ fa bàyyi kooku tamit ci 500000 bi nga xam ne ñoom la ñuy versé ñoom promoteur ci lañ koy dindi. donc li ñu war a waxtaane mooy comme li ministre bi wax barki démb ñoom ñu dem pencook moom jël seen cahier de charge jox ko ministre bi comme ñoom ñooy ay ay ay nitu làmb nekk nekk ci ñuy diriger làmb ji di jël seen xaalis di ko ci financé waxtaan mënta ñàkk waxtaan ak ministre bi ministre bi nga xam ne moom moo yor infrastructure yooyu nga xam ne kat ñu ne ko ah lii kat bëggoon nañ mu yem ci nangam ñu fay sawar a tëgg su ko defee Ibamar comme ni Pape Abdou Fall def barki démb moom nga xam ne mooy seen jiit fa mu nañ fa Euh, fay 10 000 dafa mujj ba stade bi feese da ko mujj bàyyil ña nga xam ne mooy supporters yi. te xam nga loolu aussi baaxul. mën nañ ko def fu am emplacement fu baax ñëpp seetaan ñi ci biti ñëpp dugg wala ngay xaar stade bi fees fuur comme ni ko Fall yi tëggee ñii di génn di xaar ñeneen dugg kooku day metti ci promoteur yi voilà voilà day metti mm. Fallou Ndiaye moom moo tëggoon mbokk yi daaw championnat boo xamante ne kenn ku ci nekk mbokk yi Euh, képp ku bëgg a làmb wala képp ku bëgg a sport wala ku bëggul woon làmb yaakaar naa permettre na la nga gën a ñëw ci làmb dolli na làmb lu doy waar muy euh, championnat bu ama am solo Ramdaan daal di ci génn dem final ak Pape Mbaye mhm. combat bi antuwul mhm. Ramdaan dem États-Unis lan moo indi loolu lan mooy indi cow loolu ba final bi amul ku ne xam ne ne euh, ñun dafa am ay ay sart yoo xam ne moo ñu luyee ak ki nga xam ne mooy mbër mi mhm. am sart yoo xam ne ñu luyee ak ki nga xam ne mooy CNG am sart yoon xam moo ñu luy ak ki nga xam ne mooy manageru mbër bi hmm. te yàlla dogal na bi ñu commencé ak léegi sart yooyu ñun wàccuñu ci benn amul benn bu ñu ci wàcc CNG ñu ngi may dégg manager bi nga xam ne moo yor mbër mi wala manager yor mbër bi ñu ngi may dégg ñoom kay ñoo wàcc seen ay sart muy CNG muy mbër mi muy manager bi ñoom ñoo wàcc seen i sart ñoom ñett ñooñu alors ñun nag tey mbir mi am na fu muy toll foo xamante nii li nga xam ne bëgguñu ko def nañ ko def Euh, saisir li nga xam ne mooy 6-6 ndax réew mi ku ne xam na ne su fekkee ne am na CNG lutte mu jiite làmb nga am jafe-jafe ak ñoom am jafe-jafe ak seen mbër ak seen menacé te jafe-jafe bi mën sotti da ngay dem nag nga def lu kenn mës a def ci làmb mooy yóbbu làmb mu mos ko gis ci wàllu CNG te am na fu muy lu ñu duñ jël suñu ay alal di ko bàyyi ay nit di ko fooyee non dañuy liggéey mais mais mais mosuñu amee mbër xaalis. mais CNG lan la def. concrètement ba ba ba nga bëgg kaa yóbbu ci yoon. CNG li mu def mën mënta weesu. Mhm. depuis mois de janvier. oui ba tey. Mhm. ñu jox mbër avance. Mhm. menacé bi avance. au niveau de CNG. oui joxe ñu ci mbedd de bu doon bi joxe avance nga ne ndax sax ñoo tooñ. mais au niveau de CNG directeur administration bu CNG toog. ñu yëkkati xaalis jox ko mu jox menacé yi. kon yaakaar naa ñu tooñu CNG tooñu ñu menacé bi alors ñu dem ba combat bi des une semaine hmm. cas force majeure am muy beneen mbër bu war a bëree muy Pape Mbaye am blessure hmm. man sax pour mu leer ci stade bi laa ko déggee toog ñu ne mbër mi daa blessé dañu may woo téléphone di ma ko loolu laa ci am après ci la ma euh, njàmme CNG woo hmm. xamal ne ma Pape Mbaye dafa blessé alors andi leen këyit bi wane dafa blessé te loolu texte yi nga xamante ne ni tey moom lañ lii ak CNG loolu daf ci nekk kon foofu mënuñu faa wax lu xam ne nag lii mën nañoo dal ñun comme ni mu dalee mbër bi cas de amul benn détail bu ci war a am boo xam te ni war nañ ne ah mbër bi kat dafa tappale war def lii ndax këyit la di bu wane moom effectivement loolu texte yi da ko wax te li ndax ay texte moo ko wax te ñun ñoo jënd licence ci texte yooyu waaw mais léegi léegi lan mooy photo CNG léegi mooy photo CNG euh, bi ñu combat bi ba ñu ngi euh, jàppoon date bi le 27 janvier en tant que promoteur hmm. ñëw jël date le 27 janvier. Mhm. ne am nañ date le 27 janvier CNG jox ñu date bi tamit. Mhm. bi bi joxee date bi ñu leen datu Pape Mbaye Ramdaan la bi ñu génnee CNG woo nañ menacé bi nga xam ne moo yor Ramdaan woo menacé bi nga xam ne moo yor Pape Mbaye xamal ne leen le 27 janvier la ñuy bëre. alors le 27 janvier ñu dem ba weewu combat bi xam ne mbër mi du ñëw daw na ñun ñu si CNG bi ñu leen këyit xamal leen kat mbër mi dem na. Mhm. te gis jàpp nañ ne du bëre si. waaw lan la CNG war a def comme moom moo joxoon mbër mi xaalis bi. yow laay laaj lan la moom moom moom moom la bëgg laaj parce que fu toll nii comme jox na ko avance bi xas na kaa jox avance bi ah. mais est ce que ku nekkul ci réew mi est ce que neex naa poursuivre tey waa ah, CNG. ñun joxuñu woon mbër xaalis ndax du promoteur ak mbër ñooy lié. yéen CNG ngeen jox xaalis ak menacé. Hmm. tey la ñuy jox CNG jox menacé. wala nga ñëw CNG CNG bi ne la joxal menacé bi kon ba tey yaa ngul bi sequ leen dara yaakaar naa waa CNG danañ ci euh, indi euh, réponse ba pare danañ ci liggéey ñu ñëwaat rek euh, pour terminer ak Fallou ci li nga xamante ne moom mooy journée yi nga xamante ne moom la tëgg alors Fallou lan ngay xaar concrètement ci journée bi yan façon liggéey nga ci xalaat def pour journée le 27 bi juillet foofu ci arène nationale waaw journée le 27 bi nag dafay journée boo xam comme ni ma koy waxee rek journée buñ fonk la mhm. tournée la boo xamante ne nii lépp lu war ci wàllu événement lépp lu war ci wàllu làmb dadaaw ñu ko def mhm. sax incha allahu rabbi nañ ko indi dinañ jël tamit suñu ay nit yi mhm. nga xam ne suñu ay xarit lañ mhm. kenn xamu leen sax ci làmb incha allahu rabbi dinañ leen di ci làmb boo xoolee bu ñu organisé même Ibamar bi dañuy xuloo mbër yi di xuloo seen encadrement yi ndax ñun bëgguñu suñu làmb mu xajal nga xam ne amoo fa soxla ci biir kenn kenn booleelu yow carte moo la woo dugal ci enceinte bi mooy bâche bi nga xam ne moom la CNG soit nga nekk bâche bi nga xam ne promoteur moo la ko jox muy bâche autorisation soit mu nekk accréditation nga nga xam ne yi. d'accord ni ma leen ko waxee chaque semaine bu soobee yàlla danañu invité benn promoteur wala mbër képp koo xamante ne dana yëngu ci wàllum làmb fi nga xamante ne moom mooy Gusto Italia ñu fas yéene leen indil euh, waxtaan bu ama am solo ci wàllum làmb lépp pour li nga xamante ne moom mooy yokku làmb. alors Fallou njaay la ñu dalaloon tey ñu bàyyi ko mu tàggatoo remercier ñi mu war a remercier Fallou bismillah yàlla def mu kawe seen jot amiin amiin waaw ñu lay remercier yow it di remercier bu baax a baax sa staff parce que aussi euh, sa rakk ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñëpp ci ginnaaw euh, Khadim yaakaar naa ku disponible la aussi koo xamante ne la daf ñuy mettre à l'aise bu ñëwee fekk journalistes yi ak équipe bi yëpp danañu góorgóorlu ba mettre ñu à alors ñu lay remercier aussi ci professionnalisme di la remercier aussi ci wuyu bi nga xamante ne wuyu si nga ñu ko euh, di la ñaanal rek ndam ci événement yi nga xamante ne moom moo nekk sa kanam mhm. alors coach looy tàggatoo waaw waaw di gërëm waa Equivox waa Vox Arena di gërëm Fallou ak Xaadim ak Kam ak Dugaar mi mu àndal ndax dañoo bokk benn koñ muy xale yoo xam ne yàgg naa leen taxaw mooy li ma rek ba ma juddoo ba léegi daanaka boo déggee maam lees yi daanaka duubalees la njëkke donc nag ci bëre laa njëkke donc nag jóge géejawaay chaque jour di tàggat waa parcelle xam nga lool c'est pas facile te yàgg na donc nag di gërëm ñi fi teew ñëpp di leen gërëm di di gërëm waa restaurant bi waa Gusto Italia donc di gërëm DG beeg ñi fiy liggéey yëpp. merci beaucoup merci beaucoup coach merci beaucoup Fallou Ndiaye mbokku téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante ne euh, moom lañ leen indiloon tey ci seen émission euh, Vox Arena di remercier bu baax a baax waa Vox euh, waa Gusto Italia di restaurant bi nga xamante ne mu ngi fii ca Almadi voilà di remercier bu baax a baax euh, coach Mame di remercier Fallou Ndiaye di leen wax ni mbokku téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon tey ci seen émission Vox Arena di leen wax ni chaque semaine danañ leen indi lépp loo xamante ne ci wàllum làmb la lu koy yokk danañ ci ñëw di remercier bu baax a baax suñu partenaire waa Gusto Italia nekk fii ci Almadi ci wetu station Shell bi comme ni ma leen ko waxee seen numéro téléphone 77 116 81 81 77 672 72 27 wala nga jot leen ci 33 820 62 08 alors ñu leen di bàkkee les délices de la cuisine italienne et sénégalaise waaw kay boo leen bëggee lépp loo xamante ne ci wàllum euh, euh, togg la Italia ñëw leen fii nga xamante ne moom mooy Gusto Italia doo leen ko rëccu benn yoon may remercier équipe technique bi nga xamante ne ñoo ma gunge tey ci wàllum liggéey bi di El Hadj ma koy remercier ak ki nga xamante ne moom mooy Momo sama goro di remercier également Danik merci beaucoup di remercier euh, sama PDG ah bu baax a baax a baax du ma koy tudd bu ma ko siwal voilà sama PDG daal maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xamante ne moom mooy Badou ok sama grand añ bi neex na bëri na merci beaucoup di remercier bu baax a baax a baax ki nga xamante ne moom mooy Bessé nekk fii ci Gusto Italia di remercier bu baax a baax sama grand euh, Madiop di remercier Madiop bu baax a baax di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fiy liggéey di leen jox rendez-vous très bientôt ci seen beneen numéro Vox Arena peace